Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles mooy Bombardier jël bu troisième combat vous fas yéene ko préparé waat digganteem ak Balla Gaye 2 tey tey yow nga yoroon Balla Gaye numéro 2. est-ce que daa amaat boobu comme boobu est-ce que dina am. yaakaar naa non non lekk avance. day am waaw ah, boo amee incha allah ko fekk comme tey. Hmm. Hmm. dañ ko fekkee comme tey. dañ ko fekkee comme tey kon boobu da koy assuré ah yàlla daal. Hmm. yàlla. ah non xam na xam diggante Balla Gaye Eumeu Sène troisième fois bi dangay ngay assuré Eumeu Sène victoire ginnaaw yàlla wala. ah ginnaaw yàlla. Hmm. am naa yaakaar que incha allah yàlla na may. xam nga saraxu Balla Gaye nag yoroon nga ko. boo fa man ñooñu man du ma wut sara mbër damay bàyyi wu rek ma def lu may def rek. Hmm. non bëgg nañ xam nag père maanaam moom combat boobu. lay wax gars yi. non am bële na mm. bu dee dina am. Mm. non dina am ci kàttanu yàlla. ah boo am kon dina ne. Ah. demal demal demal toog nga demal mm. ñoo la sax. lay ñëw fii. ka demal demal rek. Ah. incha allah eh, eh, eh. ah. waaw. nga gis ne nag incha allah waaw. mais ci wàllum galaaj bi xam nga Baala ndaanaan euh, man Casamance laa juddoo foofu laa kii. ëmb Casamance la dëkk mm-hmm. kon kon loolu dina doy hmm. daal. Hmm. bu la fekkee jàmm kaay kaay toog nga seetaan hmm. kon yaa ngi xaar combat te tamit yaa ngi koy yàkkamti. Eh, man nee na la pare na pour mbër yëpp. yëpp pare na pour mbër bu taxawaatee du xaw tuut am tuuti si yow maanaam lu di si yow tuuti. non non non euh, lu passé daal lu passé passé na rek. damay fàtte de passé na. paas na waaye moo leen boole woon waaw mom su ma boole mais mu dem ba problème am dubale fekk na ko waaw diggante boobu noonu bi problème amee ndax lees ñëw na si wax lu si àq def si si war jéem na ya wax mais après affaire bi yàqu si man du ñëwaat franchement man dama ne non non kon daal yow boo jàppee jàpp nga so baye baye suma japp man jola na suma la jappé dam li téye la baye tam baye na la na kon moment bi bala Gaye su combat bu amul sen ñoo bëgg ñaanlu ci yow non yaakaar ma du du du hmm. kooku moom. Hmm. non yaakaar ma ko. Hmm. pour ñëw ne pour nga jàppale ma ah yaakaar ma ko daal. gis nañ tamit doon nga préparé ki nga xam te bi moo Lac de Guiers numéro 2. MCS International études et formations à l'étranger vous êtes élève du terminal bachelier ou étudiant obtenez votre admission dans les universités françaises. Lac de effectivement mais Lac de Guiers dem na ba bu mu jëlee combat ma kan ku kan la mujjee bëre. Euh, kii la mujjee bëre Eumeu waxuma dara. waxul dara waxuma dara. Hmm. waxuma dara ma dégg ay déclaration waxuma mais aussi ah kon lu ma wax rek. Hmm. ñun de ñu ngi fii. mais avant combat moog Eumeu Sène bi yaa ko doon ñaanal. moom avant combat Eumeu Sène. maa ko doon waaw mais mu jékki-jékki ah arrêté. jël Eumeu Sène arrêté. comme mu taayee aussi. Ah, hmm. taw kon xam sa diggante ak Eumeu Sène ni mu moo tax ah, euh, mais moom xamoon na ko. moom xamoon am loo xam ne ñu moo xam na demat sama dépense ak ma yëpp moo xamoon na ko. waaw. dem xamoon na ko. waaw ah, léegi bu ñu ne moom kii na am problème am problème mais ñu ngi ñu ngi fi ñu ne ñu ngi fi moom. yéen fi. ñu ngi fi de. Hmm. dégg nga lu ma la dama ne ñu ngi fi di xaar. Ah, yéen ah, allah ku ci ne. Hmm. yàlla bu ñu boole rek incha allah ñëpp nañu ko fi. Hmm. sa diggante ak Doudou Sané ku ne xam na ni yaa ko indi foofu ci taay singa sa diggante ak moom lan la Doudou Sané. Doudou sama jarbaat la sama doom sama lépp waaw fii la ne man. kër gi la ne moom sama jabar te moom tamit ah carrière ma yàlla baax na nañu doog seetaan rek. ñoo gisee xale boobu moom tamit yàlla baax na. Hmm. bi ci yàlla àndee. Hmm. yàlla baax na ñëpp nañu toog. dinañ allah hmm. waaw. Reug Reug ak Sa Thiès combat boobu noo ko gisee en tant que koo xamante ne. est-ce que non gëmmuñu bëri ñoom ñaar. gëmmuñu bëri ah, ah bu ame ya. ah bu yalla baax na ko fekkee hmm. mais man ah mo ma sóoraale de <laughs> fu ngi sóoraale prévoir man ni ni hmm. ah man da yalla ma ngi ci gënaaw yalla dal hmm. ah mais comme boobu yow ni kon kon war na mëna am moment bi bu mom yaakaar yakar mako am dal yakar mom am dal non la moo tax nga japp ni yaa ko waroon dina am ci lan la ci ah. moy tontel wala dafa am ko gëna mom dudu dam ko jox kii Eumeu Sène sama jarbaat. waaw Eumeu Sène. Mm-hmm. nu mu daay ak rek rek. Mm-hmm. man umb la lépp laa xam. donc bu mm-hmm. comme bu daaw moo tax mu xaw a jafe tuuti dana xaw a jafe tuuti. que aussi ma su may ne moom la ba pare mu kii daa xaw a jafe daal. non dama ne diggante Sa Thiès laa wax. Sa Thiès ak Reug Reug. boobu ñoom na mun am lu mel ni ma mën a wax. Hmm. franchement. waaw mais amuloo lu a mais en tant que koo xam tamit day ñaan ci day ñaan ci làmb. mën nañu bëre ñoom mën nañu bëre. noo gisee ñaari ñaari xale yooyu seen ginnaaw seen. Hmm, combat la de. Hmm. combat la de <laughs> mais du ma sore daal yow wax ma ko ne ñoom préparé man xam ma ñoom ni ñu. mais bëgg nga combat boobu. ah pourquoi pas comme ñoom may mbër lañu kay. waaw ah bu bu baax na pour ñoom ñaar yaakaar na. ëllëgu Balla Gaye ci biir làmb noo ko gisee. ah balaa mun na comme xam nga comme bàyyante ne man am benn vision bu may def moom a teg mais ma def nga toog ne kat kii mbër mi am na lu manqué ci moom te bu ko motalee. de man ko maa ko yoroon. naa mën a wax lii ak lii. mais comme yor ma ko ma xam ma mu toll. Hmm. ëmb rek nga xam fi mu toll nii. ëmb laa xam. à ndax am na yeneen euh, mbër yu mag yi di ñëw fii si yow di no non non hmm. non non non franchement à part ëmb ak lan kii waaw te du Sané ñaan bu ndaw la moom mbër bu ndaw la mais moom moom ah fu ma ko teg yàlla xam te mu tam fu mu teg yàlla xam waaw. lu muy def ci mbër. gàllaaj baax na de wàññi gàllaaj da bëri façon sax. da bëri façon da bëri façon. am na gàllaaj yoo xam ne vraiment daa ne ne ne wala daa bëri façon. waaw poso laa bëgg nga tojal ma ko ñaar rek. non oh, oh, non oh, non c' est compliqué daal <laughs> mais daa bëri façon daa man daal yàlla daal nu may utiliser daa bëri façon. Mm. bu dee mbër mu ndaw man na ki bu dee kii mais bu dee ponkal laa. kon gàllaaju mbër mu ndaw ak gàllaaju ponkal dafa am différence. mbër mu ndaw man de loolu dama doon fii mbër mu ndaw bul ko yaakaar pay comme dem rek. Mm. koy famille moom la ñu yaakaar. Mm-hmm. mais bu dee ponkal moom ah. Mm. moom moom benn affaire la de. gis nañ démb Eumeu Sène bëri nag euh, euh, Bombardier si premier round ba ñu dem ba génn saako yi ñëwaat ñu gis muy laajte benn butéel di ko xëppoo butéel boobu lan la. butéel comme butéel yi rek. nag butéel am différence. nga butéel ëmb bi nga xëppoo daa lu gën a raakaaju daa daa jeexal lam. doo bopp raxas non non ëmb ja jot naa ko ne bu dee ñaar accord sax deuxième accord da ngay jéem a nax Bombardier nga mel ku sonn. Ah. day ñëw mm-hmm. xam naa ko. mais boo déggee boo kii rek day ñëw bu ñëw woo na di nga am bunt. Mm-hmm. mais son loon. Mm-hmm. Mm. combat bi galaaj fañ na ci. boo waaw man de am na si nga xam ne suma ko su suñu bët. Mm. lu muy mbët yoo xam ne bu ñëwee nu di ko def ba pare mu ñëw te changé. Mm. am na kii contre kii baaxul. kon démb gis am na benn ah moom um nag ah. <laughs> wax daal. Ah, ah, koo yor moom pour que munoo ko ne lii ak lii. noo gisee làmb ni muy doxee. ah làmb bi de léegi ah. mm-hmm. daal c'est un peu difficile ah léegi que léeg-léeg mu taxaw léeg mu dox mais nag sant rek sant yàlla sant yàlla mm-hmm. le nouveau président man ah, xam naa ko nii rek mais mi leen teew ñu mm-hmm. maa ngi koy ñaanal nag vraiment yàlla lépp yombal ko la mm. ëllëgu Eumeu Sène ci biir làmb Eumeu Sène mu ngi fii Eumeu dama la ne mu ngi fi pour mbër yi ku la ku ko yàlla boole. Hmm. bés dina ñëw comme tey hmm. incha allah. mais dañuy gis comme maanaam carrière bi mi ngi demaat te mi ngi mi ngi war a préparer ki nga xam ne mooy Balla Gaye numéro 2 su fa jógee am na yeneen ñu ngi seen war ëllëg ëmma ñëwaat ba nekkaat droit de loolu moom lépp laa prévoir sëmb. Hmm. te yéen naa ko lu ne nag. dugal nga ko ci ruq bu ne. def naa ko yéen naa lu ne nag. ba ñuy xam. benooy dafa man ne yow da nga yaakaar ëmma dina jënd si Bombardier man ne yàllaa xam hmm. yaakaar ne dina jënd ëmma lu amoon moom ak Modou Lo ñaan moom mu amaat waaw hmm. mais ku jël tam ah, yàlla baax na yàlla baax na mais ndax bi nag boobu euh, dina yomb quoi boobu ça dépend si Modou daal euh, lu ma la Balla mu daan ko mu daan ko deux fois te yow xam nga ne Balla Gaye 2 mbër mu mbër moo xam tamit bi dafa mën a bañ. yàlla tooy mooy binde moom première fois ñaanu deuxième fois ñaanu ko kon yàlla mooy kii. Mm. même Bombardier mii. maanaam ko man non yàlla mën na ko daan. Mm. mais pourtant ko ma bu yomb la. waaw. Ah. Mm. man ah nu may préparé yeneen gars yi nii préparé man dama dem Mali di wut de non non man lépp fii la. <laughs> lépp fii la de ci tund bi ma la fekk nii. incha allah fii la. ba damay génne foo dem ay côté Casamance yooyu rek Gambie tout ça waaw mais man lépp fii la <laughs> dóor mu daanu am na ci làmb waaw am na. galaaj boo xam tamit boo ko takkee boo dóor. waaw waaw am na am na. Hmm. am na ii am na. Hmm. am na de. am na ci biir làmb. takkoon na ko dem. ah. yow fekk fekk du fekk nga ko. gis nga lu maa ngi ci mais maa ngi xam yow jox nga ko boo xam te ne bii bii. doon takkal la ko doon takkal li mu dooree wax yi laa ci tubee. wala mu ko doon takkal waaw. papa kon bëgg naa ci yow. ah waaw am problème kontaan na kontaan itam vraiment. Hmm. fet ngeen déplacé fi loolu yëg la rek. Hmm. doomu aadama mboota moo yëg dem si moom te ñi bëri nañu. Hmm. ah maa ngi leen gën a sant gën leen ubbi li bunt yi. fii seen kër la. bu leen di man moom interview. lu ma koy def mais bu ngeen yéer am problème am problème. kontaan naa ci bu a a kontaan maa leen gën a que déplacement bu fii c'est pas facile. Ah, ah. Mm-hmm. kon Paco am nañ mbégte ak kontaan bu baax a baax tey seet ki nga xam te ne bii mooy suñu papa suñu nijaay muy Ibrahima Boudia ku ne xam na ni mi ngi def ci làmb lu am solo di ànd ak mbër yi ku ci mel ki nga xam te ne bii ànd nag Balla Gaye ànd nag la de Guiers numéro 2 ak yeneen mbër yi nga xam ne bi tam ñu ngi ci biir làmb mais gis nañ dem mu ñëw indi ki nga xamante ne bi mooy Eumeu Sène ci digganteem ak Bombardier ñu gis ni mu entamé combat bi ba am ci ndam dégg nga tamit lu mu wax ci wàllu gàllaaj ak ci wàllu préparateur kon ñu ngi am mbégte kontaan ci képp ku nga xamante bi rek mu ñuy suivre dañuy bàyyi xel ci Lutte Sénégal TV di leen wax seen mbégte mooy suñu yite lépp loo leen mënti bëgg fu mu nekk dañ koy jëlee jox ko ñi nga xamante ni ñuy bëggee dañuy bàyyi xel moo tey ñëw fi nga xamante ne bi xëcc na trop mais liggéey bee ko laaj kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di lañ jox rendez-vous ci beneen programme di wax jàmm ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal jërë ngeen jëf. ma Xaadimu Rasuul nag dañuy ubbi du lundi au dimanche ah dama ne. kon nag boo bëggee ay kar yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Xaadimu Rasuul ña nga nekk foofu ca Parcelles Assainies ca booru marché police établissement Xaadimu Rasuul le choix de.